taala wa barakaatu sëñ maa ngi lay nuyu di nuyu ñi nga àndal ñëpp di taxawal lu am solo ngi dox sëñ maa ngi lay sa bokk yi nga àndal te taxawal lii muy lu am solo lu am njariñ loo xam ne ñëpp a ko war a bàyyi xel te ànd ceeg yow xaj na jamtaay gi moo tax waaye doon na jaadu nag samay mag bari fi lool samay rakk bari fi lool daa leen dogal ngànt nag tey ndax jàmpaay lii ñun ñëpp la dal ñun ñëpp la naqare nag bi ñu jabootee suñu doom ñu am fulla am fayda taxaw ci lii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 waaye du dem ci kilifaam di ko tàggu ndax ak njaxum kenn du ko tàggu dëgg la da ngay jekki-jekki ni ca xës ñu fekk la ca wallaahi bu ñu la tëjee wala ñu def na bu ko defee sëñ ba topp di li lijjanti hmm. waaye sëñ moom du wax bu njaxum loolu sëñ sooy moo ko waxoon Omar Diagne rek jëriñu lenn li ndax moom waa ji wax na ko gànna moo ko wax nee na ximaar la ximaar nag xamul gafa yat la xam dëgg la de te waxoon naa ko bu la mbaam weqee na ngeen ko dal mbaam mi nag daa weq weqati kon nag suñ ko saafara nun muy nañ ko saafara suñu bopp fu mu mënti ne mën nañ ko fa fekk lijjanti ay yatakaa fi ay karatakaa ngi fi dëgg la nañu ay burde amul complexe de dafa tooñ dëgg la te kim tooñ lañu yaakaar ëpp nag àllaka dëgg la te moo nu gën a suñ day gën a suñ baay gën a suñ bakkan gën a suñ lépp Omar Diagne mii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 sant njaboot Sëñ Tuubaa gi sant taalibi Sëñ Tuubaa yi ñun ñëpp am nañ maase takku ni aw say xam ni jan dool rek fi nekk Sëñ Tuubaa ñu ko jox ñun kër amut Sëñ Tuubaa rek am te kër yaa ngi bëgg a yàq yoon nag ku ne dufal baay ba jàpp ni moo def dara kenn la fi bàyyi mu deful dara Sëñ Tuubaa def lépp dëgg la naam maye na ñu bari lool li may bari na ndax ñu ko toppoon dañoo xamoon dara jaam te am am am cër ci seen borom waaye ñu futtiku jaay cër boobee génne ko taali bi liggéey sëñ Tuubaa ba sëñ Tuubaa dafa kon nag ku bëgg a yokk la la bu ko fàtte sëñ Tuubaa dafa bu ñu ko fàtte asalaamaaleykum wa